salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sen Teranga TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen seen i différentes émissions alors dellu si nañ ci émission bi nga xamante ni mi ngi tudd entretien du jour tey ñoom mbégte mbégtewu dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, Mandaw Thiam di coordinateur adjoint convergence mixte euh, patriotique nekk euh, mouvement citoyen d'action politique nekk également wala bokk ci coalition bi nga xamante ni moom mooy Diomaye président li ñu war a waxtaane nag bokk na ci actualité bi Diomaye face à la presse ak yeneen i information wala yeneen actualité yi nga xamante ni moom moo sox soxal langue politique bi ñoo am lool nag quand dalal la euh, la nuyu di la ziar. ziar euh, Ousan. Mm-hmm. je pense c'est la deuxième fois ñu def. Mm-hmm. entretien man ak yow. Mm-hmm. mon premier entretien d'ailleurs je crois sur Sans Limite. noonu laay nuyoo waa Sans Limite. Euh, di ziar suñu langue politique. Cheikh Bara déjà moo koy ñaanal un bon séjour à la Mecque. jumra euh, bi di nuyu aussi sama mouvance mhm. convergence mixte patriotique bi nga mhm. xamante ni maa maak sëñ Cheikh Tidiane Thiam ñoo yor coordination bi mhm. di fësal suñu ay activités citoyennes surtout euh, et que am nañ activité ñuy door bientôt pour l'orientation des nouveaux bacheliers wax leen la cartographie des métiers yi am ci àdduna bi ak Sénégal ak des diplômes seen orientation nan lañ ko mën a doxalee fii ak le trente ans cinquante ans yi di ñëw tàggal leen ci ñu ngi ko bëgg defee UCAD en attente de confirmation mais voilà si si ci ci yooyu lañuy dox euh, entre autres. Mm-hmm. et euh, noonu lay nuyoo fii euh, le président de la république di ko ñaanal jàmm. Mm-hmm. ak ndam ci projet bi nga xamante ni. ñoo ko bokkee muy un Sénégal souverain mm-hmm. à travers effectivement l'action de son gouvernement dirigé par le PM Ousmane Sonko Euh, di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Thiès ku ma jógee kër Massamba Gueye et euh, waa Tivaouane sama soqeeku waay ak kër Baba Alima kon euh, Ousseyn maa ngi lay. Eh, delloo kàddu bi alors wax nga ko léegi da ngeen maanaam li nga xamante ne mooy mouvement bi dafay dafay jàppale en quelque sorte rawatina si actuellement mooy jeune yi nga xamante am nañ bac bëgg war a soxla orientation bëgg nañ am tamit ku leen assister ci côté boobu donc lan nga gisee baggu ren bi ak manquement bon je n'ai pas dit manquement ak yenn mbir jot a am ak yooyu. Euh, micro bi oui taalal micro bi en tant que ngeen ngeen jégalu bon xam naa nag euh, dañuy euh, dañu lay bàyyi nga présenté waat ndax dafa mel ni micro bi ko xaw laalaat. Euh, voilà c'est bon acca mën nga continuer mën nga continuer xam naa sa baaraam moo ko laal mhm. ci bac bi waay ok euh, donc euh, il faut savoir chaque année dañ am dysfonctionnement mhm. ci ni ñuy defee bac muy mhm. fraude waaye aussi muy utilisation de téléphone entre autres en tout cas loolu lépp day dugg ci cadre fraude et que lu ñu war xeex la moo guerre ñoo yem mook leneen ak leneen loolu mooy dem bu ubbiwaat ñoo ñu daan frauder ñoo ñu daan guerre ñuy duggaat ci gouvernement mhm. yor xaalisu askan wi aussi di ci def naka si dul noonu jàpp naa ni njàng mérite la mhm. donc bu fekkee da ngay jàng euh, amu capacité pour jàll diplôme mhm. redoubler da koy jar que nga jéem a def beneen pexe pour jàll donc ñu ngi koy naqarlu woo aussi parents yi ñu am plus de responsabilité ci xale yi que bu ñuy demati examen bu mu mënti doon e que ñu bàyyi seen ay téléphone portable mhm. euh, au niveau de la maison bu mhm. fekkee ni nag dans l'impossibilité il est tenu bu ko defee bu ñëwee ba ci biir euh, centre d'examen bi ñu mhm. déclarer seen sac am na je pense des euh, fu ñu koy man consigner pour ñu bañ a duggante euh, téléphone yi dans les dans les salles de classe noonu la ñuy rafetloo di féliciter ñi nga xamante ni jot nañu jàll di leen ñaanal yàlla ndam en tout cas bienvenue dans la vraie vie maintenant parce que c'est à partir qu'on découvre effectivement euh, le monde mhm. nous regarde en général booy am bac le quartier bi xam ni yaa ngi doon jàng mhm. ndax doon la lijjanti ba fekk amoo bac te loolu il faut mu deñ loolu moo waral d'ailleurs d'ailleurs mhm. que loolu daan na am ay à l'époque suñu ay temps ñu daan ñëw ci yi di ñuy jox ay orientation loolu amatul donc les jeunes sont désœuvrés du ñu xam lan lañu war def avec un campus sain bi nga xamante ni Euh, bascule quelque part par défaut. et que tu vois des jeune des fois dans le monde de l'emploi nga laaj leen lan ban diplôme nga def fan nga nekk ñu ni la par défaut lan ñu fa orienté. Mhm. et que loolu pour mu dañ. faw en amont ñu tàggat suñu ndaw yi dès le bas âge. Mhm. soit primaire wala en tout cas bu ñuy def BFM. Mhm. ñu teel a duggal seen bopp yi lan mooy les métiers de demain. lan mooy cartographie yan mooy métier yi nga xamante ni ça tend à disparaître mhm. yan yooyu métier yi ñëwaat fii ci kanam et cetera mhm. pour que ñu xam ban métier ban poste ban diplôme ak ban rémunération en général mhm. mooy xew et loolu lañ bëgg ñun initier xëy na fii ak le 27 si on a l'accord de l'UCAD pour dem fa woo ndaw ñi am bac mais aussi ñi waaj am mi bac mooy ñi nekk lycée BFM ba ba terminal suñ fa ñu avec des places limitées bien entendu Euh, et que wax leen euh, def ay euh, conférence expliquer leen mhm. li nga xamante ni moo leen di xaar demain et buñ ñu fa mënee am aussi invitation d'autorité on le fera avec benn benn thème bu ñu fay développer pour mhm. l'intérêt commun mhm. alors ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy face à la presse président Bassirou Diomaye Faye suba ñu koy xaar fële ca palais national mu invité presse national bi alors balaa ñu siy ñëw parce que maintenant yaa ngi ci coalition bi c'est vrai que ñu ci duggee yàggul am na foo nekkoon donc fi nga nekkoon mu nekkoon gëm sa bopp et puis d'ailleurs da nga bokkoon ci euh, pôle communication bi nga xamante ni mm, da nga doon gérer wàllu presse bi donc forcément di nga xalaat ci lii euh, tableau bi nga gis nii mais au-delà de tableau bi kañ nga bàyyi gëm sa bopp. Euh, après parrainage. Mm-hmm. bi ñu demee parce que lu ma gëmoon la. Mm-hmm. jàpp ni waroon nañ mën a sori. mais euh, jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. Mhm. quel que soit les micmacs de l'autre camp. yàlla dogal na jàllu ñu woon parrainage malgré taxawaay bi nga xamante ne Gueye l'original amoon na ko ci. Mhm. ak euh, ñun ñëpp pour fa fexe ba loolu bañ a nekk un obstacle. Mhm. ça l'a été et moo ñu waral par logique. politique par logique d'éthique et et que sàmmante ak suñu ligne directrice dañu waroon basculer ci euh, ki nga xamante ni moo nekkoon anti système muy le président Ousmane Sonko euh, bien vrai que effectivement le président Bougane mi ngi ko doon wax ci les ondes de Walfadjri d'ailleurs que ni la logique ak effectivement euh, ki mu comme jàllul ki sës ci jàll gi mooy te mu bokk ak moom vision ak anti système mm-hmm. <laughs> naturellement c'est euh, mm-hmm. le président Ousmane Sonko à travers Diomaye mm-hmm. et que wax na ko PMD donc mm-hmm. euh, et loolu moo nekkoon logique bi bi ñu gisee dilatoire bi nag di am ñu ni lii jëmul kër et que comme ñun dañ gëm anti système benn dañ gëm ni kii fi nekkoon muy Macky sàll du ku baax ci réew mi Euh, gis nga li fi xew bi ginnaaw bi mu fi jógeeg léegi rek rapport yeeg mm. euh, malversation yeeg euh, mauvaise gestion beeg et cetera et cetera gis nga ko loolu dañ ko teeloon a gis mu mm. yàgg ci yeneen secteur et cetera mm. et loolu moo waroon suñu combat pour que ñu jële ko fi beneen bi mooy jële fi lépp luy anti système fexe ba instaurer fi la souveraineté mm-hmm. fexe ba cette croissance extravertie soit maintenant une croissance endogène mm-hmm. c'est-à-dire fii ñu ko fiy lekkee fexe ba suñu agriculture en tout cas suñu secteur primaire bi nga xamante ni suñu PIB daf cay peser seize à dix neuf pour cent mu mm-hmm. dem ci ratio de trente cinq pour cent mm-hmm. ñu gëm ni mën nañu industrialiser réew mi versus ñii fi nekkoon nga xamante ni dañu woon dañuy def ci axe un mm-hmm. transformation structurelle de l'économie mais effectivement ils ont fait la transformation extravertie de l'économie te li fiy ñoree day génn en brut mhm. ñu dem def valeur ajoutée bi à l'extérieur mhm. ñëw jaayaat ñu ko en en plus value mhm. ñuy fay mooy tax euh, maîtriser wuñu suñu économie maîtriser wuñu suñu flux de marchandise et cetera parce que dara du fi transformé woo et donc marché extérieur bi bu amee choc danga koy yëg ci sa ay pricing sa prix et cetera loolu moo waraloon combat bi combat boobu bi ñu gisee nii kii euh, ki fi nekkoon euh, gëm sa bopp. daan ko doxal jàllul parrainage ko donc mënta nekk président. Mhm. et bi nga xamante ni moo nekkoon mooy jàppale Ousmane Sonko mu fësaloon ko ñun ñëpp ñu ko daan fësal d'ailleurs même si sa plateau. Mhm. dañ ma doon laaj lu tax yow est-ce que Bougane nga faral wala Ousmane Sonko tellement. Mhm. la vision pour ñun était commune mooy jëli fi kii. indi fi anti système. et donc. on n'avait pas compris ce dilatoire moi bien évidemment j'ai pas attendu euh, ndigal euh, lu deuxième tour rek et pour pour euh, deuxième tour xëy na si en 2035. ah mais mais moment boobu moom waxagul moment bi nga wax ni moment bi nga bàyyi. Hmm. mooy boobu moom waxagul ndax day dem deux day xaar deuxième dama ni xaaruma ko fa. lu tax xaaroo ko fa en fait. non mais parce que y avait un dilatoire. dilatoire mooy hmm. war nga wax. Hmm. di xaarandi. et que man li ma ci waroon wax wax naa ko la concerné. et que je veux pas euh, le débat parce que la personne de Bougane c'est pas forcément. Euh, ou une autre personne Euh, suñu suñu euh, panier ménagère yokku wala wàññeeku pour man dañuy wax ci intérêt réew mi donc ki fi yor yëfi réew mi tey ñu waroon ko jàppale bokk dans le train de l'histoire effectivement il a raté le train de l'histoire voilà c'est ça qui est dommage et que tey ñun xaaruñu woon sax que mu dugg jàppale pour am ci ay postes wala ay fonction mais au moins ñu rester dans notre logique et par la suite si on souhaite s'opposer ou pas manoon na am possibilité def ko ku ci ànd ak moom ci dans l'opposition mu dem ànd ak moom ci l'opposition ku gis ni jàpp nga ni euh, lii ñuy xeex ñii ñi ngi am yéene parce que yéene mooy fay jëf mhm. yéene ji rafet na ñi ngi commencé teg ay pas c'est très tôt pour tirer des leçons ou pour tirer sur des personnes donc euh, loolu lañu su su ma la déggee ni nga bëgg waxee ça veut dire que en fait si logique bu mu nekk nii c'est vrai que euh, mi ngi opposé wu la nañ ko mën a à travers texte ak digge bi mu digge woon Grand Théâtre finalement su koy def ci logique bi nga gis nii loolu démb rek ñu ngi si doon wax man ak sëñ Bara Ndiaye. Mhm. Euh, on s'est vu rapidement devant Walfadjri. Mhm. avant muy dem Umra mooy laaj ni ma jàpp nga ni sa waay dina dem Grand Théâtre mhm. ma ni ko dina ma bett. parce que c'est pas pas un exercice facile. ak li fi xew lépp. deuxième tour bi ak position actuelle. ak tous ces ténors yi nga xamante ni tey génn na ci parti bi. je peux citer euh, au minimum euh, ouais. Géologina, ouais. capitaine, etc. Mm -hmm. Et donc, mm-hmm. euh, dina dina jafé mm-hmm. vraiment mu ñu man feesal foofu mm-hmm. et donc mun mais comme par hasard il me l'a dit et c'est le soir que j'ai vu Ngone Saliou que je passage posté ko ci page am mu ni euh, vu tam xarit bi et que non exactement la ma ko cheikh ni ma

le soir effectivement euh, ma gis le poste effectivement et muy conférence de presse il est dans son rôle mhm. c'est quelqu'un que je respecte et cetera mais je me dis juste que man ba ma amee conseil bi ma koy jox mooy mu bañ a nekk si ci ci euh, tiire bi mu nekkee au fait c'est-à-dire mhm. teg euh, des pas mhm. d'action politique yu concrète dugg si àll bi comme ni mu ko daan def et cetera challenger le le programme du gouvernement. il des axes yi nga xamante ne ñoom teg nañ ko ni nii lañ koy defee bu amee ay xalaatin. Mhm. yeneen yu yees yu mën a apporter. Mhm. pour le bien-être du Sénégal. pourquoi pas on ouais. peut s'opposer d'une manière vraiment éthique mmh. et, euh, et, et responsable mhm. mais je ne trouve pas opportun en 100 jours Euh, lii ngay gis lépp mooy tole médiatique bi. Mhm. muy si côté am wala si côté même euh, waa booru 35 pour cent bi. Mhm. et euh, di di di acharné wu sur le gouvernement comme si ils veulent mettre la pression pour que ñoom ñu cédé. Mhm. alors que d'une manière sereine bu leen bàyyee. war nañ mën a doxal réew mi et que gis nga action yi ñu nekk di teg sur place et que première assise yi nga xamante ne teg nañ ko mooy les assises de la justice rien que tey ku yeewu si réew mi jàpp ni war nga mën a tëdd sa kër ba ba xàndoor mhm. du ñu am agression indi jël jëli si la vingt deux heures mhm. après vingt deux heures si sa kër wala dugg sa kër toj ko jëli si la ay fajar et cetera mhm. heure de crime yi et pour ñëw la justice nga gis ni am na ci réew mi mal fii rek nga gis koo xamante ne leer nañ dañ la épinglé ci rapport mais yaa ngi toog sa kër commencé tirer tirer ficelle xamoo kañ lay ñëw mais ñu ngi ñuy teg pour def des réformes jusqu'à effectivement et je pense que dans le discours du président bi nga xamante ni moom lay def le samedi suba. am na si yoo xamante ne xëy na dina si ñëw mm-hmm. euh, ah. euh, dina si ñëw mais mais bon euh, sa diggante ak sëñ Bara Ndiaye am na ñu ne moom moo la jëlee ci Bougane yóbbu la ci Jomaay. loolu déedéet sëñ Bara jëlewuma si Jomaay Jomaay si ci Bougane. Mm-hmm. Bougane maa ngi fa quitté avant les élections pour dugg ci pour jàppale en tout cas sama jàppal. Euh, système bi nga xamante ni moom la coalition Diomaye incarné à mm-hmm. travers euh, la CMP mais au-delà euh, moom effectivement on s'est vu après les élections mhm. on s'est vu au Ghana dafa ñëwoon mission euh, en tout cas man dama mhm. fa nekkoon mission moom mu ñëwoon fa o Togo jaar. Mhm. be euh, Togo ou Bénin. je me rappelle plus li mu du woon Côte d'Ivoire wala. non Ghana Accra d'accord Accra oui. on s'est vu là-bas on a discuté. et que ci la ma ni euh, ñu waxtaan ci ci ci économie ci wàllu doxalinu réew mi. et cetera mu xamal ma ni ma vraiment boo ñëwee Sénégal nañ gisee. et que bi ñu gisee mu ñu ma vraiment euh, li ngay développé. Mhm. jàpp naa ni borom xam-xam bu mel ni yow euh, mën nga am loo indil réew mi. Mhm. ma ne ko ah man day euh, pare naa pour jàppale sama réew. Mhm. ci lépp loo xamante ne woo nañ ma si bien que man damay liggéey maa ngi dans le privé. et que jàppaguma nii nii nii nii pare naa pour quitter le privé waaye lépp loo xamante ne taxawaay la suñu réew. ci communication ci wax ci xalaatin def ay mémorandum d'ailleurs ñi ngi war a commencer avec CMP mhm. def benn mémorandum xool axes yi nga xamante ni moom la Diomaye président proposé ñu xool ci ay axes proposer suñu ay input bopp mhm. et cetera pour jébbal ko le président Ousmane Sonko maa ngi lay wax sànq ci à l'entame de mes propos mhm. l'action bi ñu bëgg a def UCAD bu fekkee ni antu na en tout cas on reviendra très vite sur la faisabilité et communiqué communiquer derrière et donc ñun loolu la ñu gëm au fait c'est-à-dire nan lañ mën a impacter suñu réew la waaja waxoon hmm. lan nga mën a defal sa réew te bul xaar lan la sa réew mën a defar pour hmm. yow parce que du hmm. post la ñuy wër wala nangam nanga wala salaire parce que tey yàlla dimbali nañu am nañ fu ñuy liggéeyee euh, te ñu ngi suturlu bu baax a baax boo xamante ni forcément on n'a pas besoin d'être dans un post pour Euh, pour pour pour pour que sa kàddu mm-hmm. àgg fu mu war a àgg wala aussi apporter sa contribution ci ci ci penc bi ci penc bi ah. euh, Bassirou Diomaye Faye euh, samedi suba à de vingt et comme ni nga ko xamee comme tous les Sénégalais moo war a jàkkaarloog presse nationale bi déjà idée bi choix bi presse nationale parce que autrement di kële bu doon bu fi daan nekk bu waree wax dafay jéggi dem kii premier discours am bu mu war a jàkkaarloog presse bi mu choisir presse nationale naka nga gisee initiative boobu d'abord toute toute logique souverainiste li mu wax lan la mooy dam bëgg souveraineté je veux des champions nationaux mm -hmm. un service privé fort national mm-hmm. loolu ci la nekk et donc boo gisee ci li nga xamante ne moom lay wax démb euh, mm-hmm. suba incha allah à vingt une GMT loolu da ko fësal même dans la diplomatie fii ñu fi daan nekk ñëpp li mm-hmm. ma koy waxee barki dem Seneweb dans la semaine après leurs élections daanaka. Mhm. fex nañ daw seen papa Macron wala mhm. ka fa nekk. Mhm. pour. prêter allégeance pas pour waxtaan mais pour jébbalu ji. pour ñu jox leen ay directives nan la ñuy yoree. c'est comme comme si on avait des préfets. qui vont à la rencontre de leur gouverneur. c'est ça qui a cessé au fait. si on l'a pas compris depuis le 2 avril mbuuma jàmm boobu hmm. la dokk mais man ndaw ku wax lii wax lee ah parce que maa ngi ñëw si lii baax na maa ngi ñëw si lii loolu moo tax hmm. ba mu toogee léegi au moins hmm. ci li ma compté parce que def na onze pays de la sous-région au moins les plus proches ñi ngi xam ne ñoo nekk suñu limitrophes pour la diplomatie d'accord du voisinage et cetera dem ci CEDEAO dem ci AES et même dem dans d'autres d'autres et donc noonu la koy continuer bien mhm. évidemment euh, dem na fi France mais dans ouais. le cadre d'un travail mm -hmm. bien spécifique en profiter mhm. sur l'invitation de Macron mu ouais. rencontrer ko donc souveraineté boobu xamante ni moom la gëm ci la sous-région mhm. moom la gëm pour réew mi dëggal suñ bopp gëm suñu bopp le premier ministre bi mu toogee léegi daanaka gisoo ko mu génn dem fenn surtout ci réewu tugal et euh, ministre mi képp ku nekk mi ngi job loolu souveraineté boobu ñi fi nekkoon ñëpp dañ leen daan wax ni leen yéen da ngeen di privilégié presse internationale mais mais d'accord mais ci ci cinq presse yi RTS Walfadjri GFM Sud FM euh, APS euh, sans limite choix bi mhm. xam nga euh, mënoo invité ñëpp mhm. Sénégal dañ koy wutal lay rek parce que bu fekkee da nga indi sans limite ñenn ñi ni ah bon Seneweb daaw mi ngi fa woon lu tax Seneweb Seneweb Sénégal 7 voilà. Seneweb ay jàmbaar lañ ah. euh, vraiment ils sont professionnels. Euh, il faut par moment ngay changer parce que je pense que choix bi télé national ñëpp d'accord nañ ci. Mm-hmm. Sénégal fii quatre télé yu mag ñoo fi nekk. Mm-hmm. entre autres. parce que yeneen yi après lañu juddu. Euh, muy ban ak ban par exemple. 7TV ITV. yi kan ak kan la. RTS la. Mhm. Walfadjri. TFM mhm. ak 2STV. 2S lu tax nekk fii parce que 2S c'est pas une télé TNT boo gisee 3 yi c'est des télé TNT. Mhm. ok ça d'une part. deuxième Sud FM fait partie des premières radios. du pays donc c'est logique. APS c'est <laughs> le, le truc du gouvernement. Mhm. APS agence presse sénégalaise. et donc outsider bi fii à la place de Seneweb c'est sans limite. Mhm. ça pourrait être euh, Sen Teranga. ça pourrait être demain euh, beneen euh, mhm. beneen. Set TV et cetera mais am na ñu ni bon. peut-être mën na nekk récompense. par rapport bi ñu liggéey si projet bi. Sénégal 7 aussi. waay mais liggéey na si. sans limite liggéey na si. y a pas mal de télé ah yu si liggéey. ci affaire bi mais mais lu tax nit war di war a xalaat. affaire de récompense. non que moo tax ba gëwuma loolu au fait. gëwuma ay affaire récompense. dama jàpp ni sans limite ils ont fait une bonne percée. tey ils sont à un million mook seen web bokk nañ ci euh, télé digital yi nga xamante ni euh, am nañ benn ampleur bi. ci réew mi bien que am na yu commencé percé ah Sénégal 7 et cetera. Euh, sunu sunu sunu seen teraanga bii. mais mm. euh, à travers cet écran maa ngi def coucou sëñ Bara Ndiaye. il faut que mu recevoir la. ah pour gën leen may euh, doole et cetera parce que y a des y a des bu ñuy ñëw si télé. Mm-hmm. dañuy yokk boost bi ak visibilité bi. entre autres. Mm-hmm. man dama gëm ni. nguuru président yi fay bi dafa war a dooleel suñ secteur privé et que li ngeen def nii entrepreneuriat la il faut que ñu jàppale leen ñëpp nag mënu nday ndar xëyir xëy sotti mënuñu jëlandoo ñëpp def fi c'est une bonne nouvelle ngeen war ko félicité c'est mm-hmm. sans limite mm-hmm. accompagner ko mm-hmm. dans cette action ba mu réussir couverture bi mais bu beneen te il faut ñu xalaat keneen ku dul sans limite et cetera et cetera nekk na absence bi nga xamante ni voilà daayira seeni plateau ñu ngi leen di commencé gis ñu ngi ciy wax. dama ko fàtte woon sànq bi muy lim. cinq télé est-ce que du ñu sentir. dañu leen mbir mi est-ce que duñu sant loolu. Sen TV bokk na ci télé yi ma waroon a cité. Euh, dama ko fàtte. Mm-hmm. Euh, man nekkul ni dama bokk fii rek moo tax ma kii mm-hmm. donc cinq télé laa bëggoon wax TV ci la bokk. Mm-hmm. bokk nekk télé leader. effectivement euh, li ñuy wax GFM des fois moom la ñu war a mën a wax. Sen TV ci ay taxawaay. lu man ci doon. choix la boo xamante ni euh, ñi ko def xam nañ ko peut-être que ligne bi nga xamante ni moom leen seen leader jël d'une manière frontale il faut l'assumer il faut assumer que ni tant yaa yaa ngi may xeex mhm. à travers ton organe man aussi su may wootee mbir man naa aussi jël un choix boo xamante ni daf la arranger mm. même bu fekkee ni même bu fekkee ni man jàpp naa ni beneen yoonati mën nañ dugal seen TV parce que au fait il faut juste qu'on régularise. mais mais mais um, il faut réformer la presse. man jàpp naa ni muy seen TV buy def liggéey bu am solo parce que euh, gëwuma yi li leen gars yi di wax ay. kër nangam yooyu yooyu rafetul au mhm. ci ci ci pénc ak la démocratie. Mhm. ni ñu respecter ñëpp. Mhm. après ku nekk aussi na nga respecter sa bopp. muy TFM muy Walfadjri et cetera ku nekk am nga sa ligne. mais man dama gëm. Euh, euh, démocratie boo xamante ni ku nekk da ngay respecter sa mhm. déontologie li nga tax ngay liggéey nga respecter ko du fekk ni man maa moom seen teranga que man lépp loo leen wax da ngeen ma ciy sóor non mhm. dama war a wax pour l'intérêt du Sénégal mhm. et pour l'intérêt des Sénégalais. li ma la li ma la bëgg dolli en fait parce que wax nga ko ni. Euh, et que Saint-Louis il y a des gens dignes yu fa nekk mais bu fekkee par exemple président Bassirou Diomaye Faye dafa nekk Euh, li ñu ko jox sénégal yi ñoo ko jox Sen TV keneen keneen ci la bokk donc bu ñu jàppee ni Sen TV dafay nekk télé boo xam ne dañuy njort ni si ñenn ñi ni ñu koy waxee que dafay xeex état bi est-ce que exemple du gënoon. ñu andi leen au moins ñu jàkkaarloog Bassirou Diomaye yoo yoon yemul si benn la wolof wax. Mhm. xëy na ah, ils avaient premier bi nii premier pas bi. Euh, mu li fësal nii. waaw mën na indi loo xamante ni après. Euh, waaw divorce lay am. total waaw xam nga bu fee euh, xam nga buñ buñ demee ba à chaque fois dans l' analyse. Mhm. du commun des des mortels. bu ne que ni Sen TV li neex boroom kër ga rek moo fay dox. Mhm. j'ai pas dit que c'est vrai. mais dans l'entendement public. ça pose problème suñ demee ba yenn analyse yi des fois c'est c'est un peu orienté même man ko de part et d'autre ah y a à boire et manger mhm. man jàpp naa ne du ma commenter euh, euh, le choix mhm. parce que ñoom Ousseynou li ils sont assez responsables pour pour pour def le choix des médias mhm. d'accord comme ñi ko fi nekkee woon man pour man c'est un premier à saluer maintenant qu'on ait zappé une télé ou deux et ça peut comprendre. Mm -hmm. ça peut s'excuser comme ça peut se mhm. lii lañ jël tey suba di dinañ jël leneen. mais tout compte fait mhm. nañ defaat réforme man sama problème sinon ah. sama question fi mu fi mu yóbbu mooy man je parle pas d'aujourd'hui mais ëllëg li mu nar a xàjjale entre ñoom présidence ak ñi nga xamante ne ñoom seen TV te warul am pour man parce que bon ñii sa première déclaration nga jàpp ni ay télé dof yi lañ léegi ana 2S moom jàppul. tere kii la nit ñi nit ñi mm-hmm. marché mbedd la ku nekk ak la ngay xalaate Facebook nga koy seen ah, en général. Mm-hmm. mbedd la penc la ku nekk ak nga xalaate mm-hmm. euh, je si je je suis pas d'accord dans cette appellation li ma bëgg a wax rek mooy. mu ci doon muy RTS muy Walfadjri muy GFM muy vous. et cetera vos chroniqueurs vos journalistes doivent rester dans euh, dans la déontologie journalistique. bi nga xamante ni mooy wax nga wax des faits réels mhm. d'accord informer juste et vrai comme li mhm. ñuy waxee mhm. et cetera et commenter aussi dans une logique parfaite yaa ngi dégg esprit partisan yooyu mën nañ ko de part et d'autre éviter pour un environnement sain ci l'espace euh, politique et politico-médiatique donc lan lan lan la ñuy xaar ci ci ci waxam moom lan ngay xaar en fait lu may xaar euh, dossier yi bari na. Euh, mhm. le président je pense après bi mu fi defee prestation de ah, en tout cas discours yi mujjee def fii. Mhm. Euh, amoon na ay orientation yu mu joxe woon. il y a mhm. des conseils des ministres am na ay orientation yu mu joxe. il est à ses centième jour pratiquement. de gouvernance yoon la. ak coow li juddu je pense que. rencontré na aussi le président de l'Assemblée nationale. waxtaan nañ. ci wàllu règlement intérieur pour ne pas parler de DPG. Euh, et mais aussi ñu ngi jéggi benn information que ni Abdou Mbow dafa ànd ak ñenn ci ay député benn bokk yaakaar bi dem Canada euh, lan moo jublu ci en ci kii ñeneen ñi dafa am pièce xëy na bu mu bëgg a lalal Bassirou Diomaye Faye mënu si dara au fait Abdou mbaw euh, il est comme il est hein lui mm-hmm. depuis trois législatures yaa ngi nii mu ngi dugg ci ci ci ci parlement bi ah. Euh, mais euh, mus nga dégg ni Abdou mbaw mus na bind question écrite wala mu naqarlu wala ku dee ci géej wala nangam nangam et cetera ah. non maa ne mus nga ko dégg mm-hmm. à part fan yi waaw lu xew xanaa ñu daan dee mm-hmm. yàlla na leen yàlla yërëm mm-hmm. bokkuñu nekkuñu ay sénégalais lan moo xew mooy waral mooy Alioune euh, Ndoye la aussi bi acharné wu ci ay ay ay. ambulants yi euh, ambulants et mais mais est-ce euh, at ban circulaire le ministre de l'intérieur génn na nii. Mhm. moom adressé wul circulaire am ministère de l'intérieur amul à adressé benn circulaire ay maire. maire bu nekk yaa mhm. moom sa gox. Mhm. maintenant il faut réformer parce que il faut que les maires euh, ñu am aussi ay ay mains liées. d'accord parce que ci préfet préfet bi moo war a valider et préfet dafa bokk ci intérieur. donc il faut que ñu. contraindre leen des fois pour yenn actions yi man d'accord naa ci déguerpissement nangam nangam mais il faut que ñu accompagner ko. Mm-hmm. l'heure n'est pas pour tout de suite. oui déguerpir tout le monde. Mm-hmm. d'accord il faut les assigner. Mm-hmm. pour que ñu xam temps de mois la leen may. ñu génn alternativement ñu wutal leen feneen fu ñu nekk et cetera et en attendant. gouvernement bi mi ngi koy wax nee na mi ngi def euh, ay ay euh, ñu ngi leen di organiser pour wutal leen ay financement ñu mën a delluwaat àll bi et cetera entre autres. wala ku bëgg a def leneen donc yaa a un temps. l'urgence ne pas la bas au fait. je pense que c'est euh, Macky Sall dafa miine terrain bi. Mhm. ñii fi toog tey téyeguñ lépp. Mhm. maire yu bëri moo ko yor. Euh, ñi fi nekkoon maire yeewi te te te wor ko aussi ñoo fi mhm. nekk. ñenn ñi e donc du coup seen premier seen dernière carte la ñuy jouer. il faut que le gouvernement soit indulgent en tout cas ci ci yenn ci population yi. Euh, xam ñii li ñuy loolu moo waraloon le président Ousmane euh, le PM Ousmane Sonko ñëw euh, Colobane mhm. pour indi xibaaru président ci sabotage yenn mhm. affaires yi mhm. mais il faut que ñu xam ni leur du du en tout cas timing bi war nañ ko seetaat war nañ ko seetaat maintenant Abdou Mbow ndax mën na def loi bu tax le président du du du dissoudre assemblée dans ses rêves dans ses comme euh, il a toujours ouais, bu fekkee bu fekkee bu attaqué. Euh, article ces là en général. après euh, bu ñu tasee assemblée bi ba nekkatuñ député. Euh, c'est fini ah. pour peut-être ils vont déménager dans d'autres cieux. Mm-hmm. mais mooy loolu quoi. mooy loolu gisuma lu ñuy mën a defaat fii Sénégal. Mm-hmm. donc moo tax ñu acharné wu ci pouvoir. Uh-huh. téye ko pour bañ a kenn bañ leen a. génne et loolu tey. loi bu mënti doon ni ñu ko tëggee ñoom mën suñ constitution dafa jox doole le président de la république. ñu bu ñu defee proposition de loi bu mel noonu le président mooy seet bu ko neexee mu ni référendum la koy yóbbu. 54 mhm. pour cent virgule 28 pour 28. moo jox bopp le président mhm. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. su ko yóbbu référendum day am dëgg si ñoom. et que bala faa ak moo fi nekk ba léegi. ëpp na 54 amul baisse moment bi ak. déedéet ëpp na yenn xam commencé nañ ñenn ñi ñu ngi naan bon voilà dañu rëccu ñuy xaw a découragé. kan moo rëccu. Euh, parfois nga gis ay reportages. reportage ciblé boo ko gisee. Ah neex na xam mais reportage ciblé la. parce que ki ñu dëgër pire mu ni man depuis vingt ans maa ngi fi waaw waaw d'accord léegi yow yow léegi su ma yëgoon du ma votel kii. waaw léegi ma yooyu aussi ma ma ne. Mhm. yow pour nga mën a mesurer yow mi journaliste. Mhm. nekkoon nga Colobane. Mhm. mbooloo ma wàcc Colobane dimanche nga xamante kenn kenn liggéeyul nga mel ni meeting ñëpp ñëw du yokkoo sonko sonko sonko sonko maanaam namm naa la bi et mm. cetera yow loolu ak koo xamante ne dañ ko dëgër bi bokkuñu ñoom daf xam nañ lu xew mm. xam nañ ni dañ leen di xeex à travers des mairies qui est une compétence décentralisée yaa ngi dégg mm-hmm. mais en attendant réforme am et cetera y a des choses yoo ni état central mënu ko vis-à-vis des maires mm-hmm. parce que nekk premier de leur ville et que population boobu ñoo leen fal loolu moo waral effectivement que ñuy acharné wu dugg fii dugg fii mais kenn découragé wul sama jàmbaar cinquante quatre yi dafa ëpp mhm. parce que gis nga soixante dix mille daanaka lu mat euh, ci ay terrain mhm. yu ñu récupéré waat te loo ko askan bi loolu moo tax euh, waa ji mbow ngay wax mhm. xëy na mer parce que bokk na ci ci ci loo yooyu ñuy wax Mbour 4 mhm. entre autres ouais. et cetera avec des intérêts menacés sur le littoral mhm. Mhm. yoo xamante ne dañ koy stoppé donc boo gësamee système système bi yaa ngi dégg xar sax soo ko reyee mu weqatu ñoom ñi ngi si toll ci weqatu pour bañ a perdre si yenn avantage yi et que malheureusement le commun du mortel sénégalais pour cent des sénégalais disent non et ils veulent dégager ce système quel que soit le rang booy occupé d'ici Mmh. di nga génn ci dans la sphère politique mmh. en tout cas administratif euh, et gestion du pays mmh. pour que ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yayoo am compétence bi am yéene bi surtout yaa dégg ak xam-xam bi pour doxal un Sénégal souverain ñu ngi si ñu ngi si euh, catal waxtaan bi bon forcément foog ñu wax xam naa du ñàkk suba également yaa ngi ci maison de la presse bi nga xamante ni coalition Diomaye euh, président ñoom ñoo fa woote di wax ci 100 jours yi ñi ni lan moo fi est-ce que du politique est-ce que nekkul lu ñuy waajal euh, élection législative yi ex euh, woote bi pour yow ban utilité la am. pour sénégalais yi euh, pose la question à à ceux qui veulent faire des conférences de presse ban utilité la am aussi. Mhm. ceux qui font des postes. Eh. par-ci par-là et ban utilité la am. Mhm. xaw ma bàjji bàjji nuñ ko mhm. tuddee. on est en champ politique. ay échéances électorales lañ jëm. Diomaye président n'est pas l'organe euh, du euh, comment dirais-je euh, exécutif c'est pas le gouvernement c'est des gens politiques ils sont sur le champ politique les gens parlent des 100 jours eux aussi ils vont sortir pour dire ce qu'ils ont fait des 100 jours la réduction des denrées de première nécessité avec une enveloppe de 53 milliards il faut qu'on en parle bien sûr nan lañ def nit ñi daan wax ni xëy na duñ mën a fay salaire nan lañ def ba fay salaire mm-hmm. nan lañ def ba éponger trois ans de dette yu fi Macky Sall bàyyi nangu ko fay cultivateurs yi ñu jël quarante milliards en quinze jours fay fay ko fay CMU couverture maladie universelle fal action concrète fay les étudiants euh, engrais bi ñu investir ci def ay conseil interministériel lu mat cinq ñu def ko ci y compris les inondations et cetera mi taw est-ce que woote gën la si ay ñu ngi ñaan yàlla. tant que sabotage bi et que man maa ngi appeler le gouvernement. sabotage par rapport ak kii maa ngi ñaan maa gouvernement bi. Mhm. ñu fexee def benn benn instance boo xamante ni dañuy def ay surveillance. Mhm. de nos ville surtout et à Dakar surtout. ñu def si poteau lampe yi cinq kii ay caméra mhm. yaa ngi pour ñu surveiller suñu réseau d' assainissement. parce que y' a du sabotage mënoo ñëw curer génne affaire bi yëpp ba mu jeex. après nga ñëwaat fekkaat fa ay ay ay ay ay pneus et mm-hmm. cetera sabotage dans ce pays il y a des gens qui n'aiment pas ce pays il y a des qui sont pas patriotes et ces gens-là il faut les démasquer mm-hmm. et les conduire en justice parce que mënuñu li nga xamante ne mooy moomeelu askan wi nga koy saboter mm-hmm. donc loolu man maa ngi euh, encourager état bi ci li ñu nekk yéene gi ak action yi nga xamante ne moom lañ nekk di def et que waa Diomaye président ils ont totalement le droit mhm. effectivement pour génn suba mhm. wax ak askan wi leen faloon mhm. cent jouri yi li ñu ci def y a ce qu'on appelle un bilan matériel et un bilan immatériel Macky Sall son bilan immatériel était nul zéro son bilan matériel am na lu fi nekk après loolu c'est à dañ ko war a càmbar à revoir parce que euh, yenn yi ay surfacturation ngi ci et cetera on verra les enquêtes et les rapports gis nañ ko Eh, fa muy mujjee ki bëtam dinañ ko xool waaye bilan immatériel boobu xam moo ko manqué woon mm-hmm. ñii moom lañu nekk di poser en plus maintenant des biens euh, matériels bu yoo xamante ni crescendo et en mm-hmm. fonction du budget yi mm-hmm. nga xamante ni moom la ñuy woteel di ko nataal Sénégal ci at yi di ñëw di ñu gis effectivement li war euh, dëgg-dëgg pour Sénégal ñoom ñu taxaw ci temm pour que li ñëpp bokk ñëpp daal si jot daal si jot ñu euh, bëggoon nañu gën a continuer waxtaan bi nga xam naa du ñàkk euh, ginnaaw bu ñu jugee ci point wala déclaration wala face à la presse Bassirou Diomaye Faye bi entre dina dinañu xëy na si ay bés yi ñëw seqaat waxtaan pour càmbar mbir mi situation dëkk bi waaw mënees na ci euh, planifier effectivement le débat mhm. décortiquer ko xool la forme comme le fond pour xool lan mooy njariñu Sénégal ak li nga xamante ni gis nañ ko ci ci rëq-rëq en mhm. toute honnêteté bu mhm. amee daañu ko accepter nangu ko parce que nit rek mooy juum. seule mm-hmm. l'œuvre humaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, de Dieu euh, euh, n'est parfait. kontaan na. <coughs> nga tàggatoo. maa la gën a kontaan Ousin di sant waa Sen Teranga. TV di leen ñaanal yàlla tele bi dem ba nekk ci télé yu mag yi. ba ñu le président Bassirou Diomaye Faye di leen boole ci en tout cas convocation. des organes de presse yi ñëw. Euh, ci biir pale bi. Mhm. di fa di fa indil xibaar sénégalais yi parce que ku nekk télé bu dafa am audience su mhm. boppam. donc euh, je salue vos internautes. ceux qui mhm. vous suivent d'ici et de la diaspora. di leen wax sénégalais yi en tout cas à travers ces di leen wax ni leen ñu am patience muy ñi nga xamante ni dañu bëgg dem si gaal yi et cetera. Euh, c'est pas forcément l'avenir là-bas. pour mythe nag mën na am nga jàpp ni fee dafa gën. gënoon na xëy na ay jamono waaye gënatut actuellement ni may wax yow parce que moi qui vous parle je voyage un peu mhm. partout et que je vois des sénégalais ñoo xamante ne xëy na bu démb doon tey du ñu bëgg génn réew mi dem feneen mhm. jàmm a ngi fi mhm. jàmm gën na fee am parce que fii gën nañu fee exécuter ay nit ray te kenn du xam ku la rey et cetera euh, ay disparition yooyu yëpp jeex na fi daanaka sécurité la ñuy ñaan ñu ngi koy ñaan le ministre de l' intérieur mu gën ko yokk mhm. yokk caméra yi am benn centre de surveillance yoo xamante ni mhm. en cas de vol on peut te traquer dans mhm. moins de vingt quatre heures def système policier yi ñoom ay moto yu gaaw pour mën a dugg si koñ yi comme ni ñu koy def au Maroc et entre autres loolu la ñuy ñaan su suñ suñu Sénégal suñu Sénégal gu naat suñu Sénégal gu am jàmm gu am teraanga et que bi ñu fexe am liggéey am ci luñ jàpp ba classe moyenne xew fii suñu PIB gën a yokku gën a euh, bu ko defee suñu mm-hmm. croissance ñu mën a wax ni euh, parce que Sénégal euh, sur les dix ans à venir bokk na ci pays yu war a ëpp croissance à deux mm-hmm. chiffres ak grâce à notre gaz et notre pétrole mm-hmm. et suñu capital humain ñu bañ ko fàtte ñu bañ ko fàtte merci beaucoup jiite kuréel gii di CMP waay convergence mixte patriotique voilà moom la ñu dalaloon nuyu Malaw Thiam bi ah xam naa moom sant bi rek moo xaw a yàq nag. kéemaan la waaw moo tax euh, may sant jomaay bi mu wàññee ceeb. <laughs> merci beaucoup en tout cas ça a été plaisir de vous servir euh, ci émission bi nga xamante ni mu ngi tudd entretien du jour ma ànd ci woon ak nga xamante ni moom mooy seen euh, seen caal yi nekkoon ci présentation bi di leen jox rendez ci kanam jaajëf.